léegi il faut que yéen ngeen 48 heures ngeen indil ñu background check bu état de New York. Mhm. yàlla dogal euh, c'était le dimanche 4 euh, lundi 5 ñu commencé dox loolu euh, mardi 6 ñu dem jël suñu fingerprint ñu jël suñu fingerprint affaire bi génn ba affaire bi génnee. Euh, donc ba ba affaire ba affaire bi génnee ñu woo les commission euh, les membre de euh, man nii sama jëm bopp man maa woo les membres de la commission donc le président nangu ñoo nangu ma jël Serigne Mbacke woo ko nangu ko jël boobu dañ leen doon woo pour wax leen ni li ñu doon demande Euh, ñoo ngi si procédure bi daf jël nañ fingerprint yi reçu yi disponible na léegi euh, jour bi nga xam ne moom la ñu waroon da euh, daje mooy mardi bi à 18 ñëw nañ mais booba background check état de New York bi lendemain bi lañ ñu waxoon la ñu koy jox ñu ñëw présenté leen reçu yi ne leen ñoo ngi ci procédure bi jël nañ suñu fingerprint demee incha allahu rabbi mooy mercredi bi mbir mi dina disponible waaye ñoom prendre ñu en considération loolu dañoo ne non non non bon le temps s'est écoulé ainsi de mais loolu yëpp li ko waral rek mooy véritablement une volonté manifeste d'écarter un candidat gênant. Mhm. te loolu nekkul la première fois c'est la troisième fois qu'ils font la même chose. partir aux élections avec un seul candidat. loolu moom moo xew euh, ci euh, euh, élection association des Sénégalais d'Amérique. Mhm. d'accord jamono ji gis nañ vote bi jotoon na commencé ba le candidat Serigne Mbacké Ndiaye a été arrêté est-ce que mën nga dellu siwaat ci lu waral ñu arrêté waaw parce que ñun ba ñu xëyee dañoo ñëw ba ñu ñëwee euh, donc euh, il est important aussi de noter bon kilifa dëkk yi dëkk bi waxtaan nañ seen biir pour trouver une solution à une solution à mooy tout simplement la solution équitable qui consiste à considérer tous les deux candidats mooy euh, et euh, mais également Serigne Mbacké Ndiaye parce que yaakaar naa ne aussi il jouit de tous les droits que jouit euh, euh, chaque membre de l' association des Sénégalais d' Amérique donc aujourd'hui kon bu ñu yéene day nekk candidat war nañ koo mën a bàyyi mu nekk candidat mais ñoom dañoo nekk ci forcing parce que communauté bi waxtaan nañu am ñoom euh, wax leen ni leen ils ont des options deux options première option bi mooy accepter Serigne Mbacké Ndiaye comme candidat deuxième option bi mooy repousser les élections à une date ultérieure comme ça ñu mën a préparer ñëpp wu ñu waxtaan ak communauté bi pour que ñëpp mën a ñëw voter massivement mais ñaari option yëpp nanguwuñ ko dañoo def forcing comme niñ ko defee daaw ak daawaati géej jàll bëgg a jàllale seen benn candidat tey nag ñun aussi wax dëgg yàlla ñu xëy taxaw am taxawaay bu mat sëkk pour wan leen ne véritablement ce sont des élections c' est une euh, c' est juste des semblants d' élections mm. c' est pas une élection parce que des élections impliquent au minimum deux candidats te foofu benn candidat rek a fa nekk ak euh, le ak yi ñu ne leen rek loolu ñu ñu ko nangu ñu taxaw ci taxawaay bi nga xam ne moom lañ ci war a am parce que ñu ñëpp ay sénégalais lañ kenn ëppalewul kenn ñu taxaw ba après finalement ñoom ñu embobiner euh, la police ba ñoom euh, ça conduit à l'arrestation de notre candidat Serigne Mbacké Ndiaye. Mm-hmm. lan ngeen di xaar jamono ji Serigne ñoo ngi koy déglu ci biir ndax woo ngeen avocat am yëgal ko arrestation bi. oui parce que ñun on est une team mm-hmm. je pense que ne fu mu toll nii képp ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi a dox ñoo ngi ciy dox. Mm-hmm. d'ailleurs ñun ñoo euh, euh, loo xam ne ñoo ngi ko war a dox rek ñoo ngi koy dox. waaw loolu benn la waaye ñaareel bi moom. yaakaar naa ne àdduna bi yëpp xam nañ aujourd'hui li xew. loolu moom moo nekkoon l'essentiel. ñëpp xam nañ ni c'est une forfaiture qui Euh, vraiment avec euh, la complicité euh, dans certain nombre de personnes tapies dans l'ombre loolu moom moo am fi New York et par conséquent lépp loo xam ne résultat là de ces de ces soi-disant élections élections là mhm. n'engagera que eux ñi nga xam ne ñoom ñoo ko organiser mhm. ñun voté wuñ ci laale wuñ ci taq wuñu ci mhm. léegi nag vraiment ñoo ngi leen di xaar fan la ñuy doxalee. d' accord merci beaucoup. waaw ah, gis nañ kii président Mika mu ngi ñëw doon def ay médiation ki bëgg a gis Serigne. waaw yan kàddu la teg seen loxo. waaw bon ñëw na waxtaan nag euh, police policier yi ñoo ngi euh, ñoom ñoo ngi def seen liggéey ci biir. et mhm. donc euh, ñun tamit ñoo ngi xaar suñu looyee ñëw na. Mhm. n'est-ce pas moo ngi ñoo ngi ñoo ngi doxal li ñu war a doxal. Mhm. waaye daal li ma la mën a xamal la le camp d'en face moom wax dëgg yàlla. et honnêtement parlant et je parle vraiment. sous le contrôle de toutes les personnes épris de justice et véritablement et de paix dans cette communauté. xam nañ ni teguñu ko ci yoon. forcing la ñuy def. mais aussi dafa am ay nit yoo xam ne qui sont dan dans l'ombre ñoo xam ne ñoom ñoo leen di euh, ñoom ñoo leen di jàppale ci loolu. Mhm. d'accord merci beaucoup. xool maa yu voté ba a nekk oh, dañ ko préparé. dañ ko préparé ah. Tonet prison they do they don't do like this Tonet prison they will they do they they dañuy dem ba fële nañ dem ba nële ci bunt dem. salaamaaleykum euh, maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar. di leen jéggalu ci coono yi nga xam ne yéen a ngi ko daj mais gis ngeen li nga xam ne moom moo fi xew tey euh, communauté bi daje nañ fan yi yëpp ci ginnaaw ànd ceeg consulat ancien président yi ak notable yi nga xam ne ñoo dëkk ci euh, ñoo dëkk fii ci Amérique waxtaan seen biir ndax gis nañ ne sama candidature dañ ko rejeté woon te teguñu ko fenn fu leer ndax lii rek wane na ko police ñëw na jàpp na ma yóbbu ma ren nañ sama kii ci fifty state xam nañ ne aw ma benn problème ci fii ci Amérique am clean léegi li ci nekk mooy ñëw naa fii nii ñëw ne damay voté ndax ne nañ bokkuma ci leen ñëw naa ne damay voté jox leen sama carte gisuñu ko ci DDB association bi ndax loolu day wane ni Serigne Mbacke Ndiaye du membre organisation bi kon amul droit de vote ba pare bëgg nekk président ba pare xam nga am na loo xam ne ay caaxaan la léegi nag li ci nekk mooy lii nii ñun reconnaître wuñ ko comme ni nga ko waxee ci rajo yu jamono yii yëpp tey le 11 dinañ organiser suñuy élection ci association des sénégalais d' bi nekk 116 na fa ñëpp daje élection yi foofu la foofu la ñu fale suñu président jërëjëf. Ah, ñaari bureau lay am. ñaari bureau lay am. From Today par exemple exactement biñ lay jàpp lan la ñu wax lañ la jàpp. Euh, dañ ne ma ndax da ngay voté wala doo voté ma ne non non dafa am nu muy demee. ndax defe naa yor nañu fichier électoral bi war nañ ko am ci biir mais amuñu fichier amuñu dara ndax bi ma leen joxe sama kii ci ordinateur bi lañ jëm dugal gisuñu ko foofu la problème bi nekkee ñu ne ma léegi dañ lay aat ci système bi pour nga mën a voter ma ne ko non non du demee noonu léegi ñu ne ma dangay génn kii ma ne non noo damay vote lii dañ koy fixé ba pare ñu forcé ma takk ma yóbbu bi ma demee fële li ñuy def mooy comme suñ la jàppee rek dinañ jël sa baaraam fingerprint rëen ko xool ndax amoo benn problème ci Amérique ndax su fekkoon am na noon na problème beneen état dañ may transféré noonu lay Amérique di doxee background check bi ñu doon kii daanaka ko waaw du ma génn fii waaw non non non ndax ñi nga xam ne ñoo ñëw di ñu votel seeni carte force ñu am carte de membre organisation bi li ci nekk mooy li nekk fii après nañ déglu seen résultat yi ndax fii amuñu nit hmm, li ñuy def ni forcing la ko def nañ ko benn yoon mu jàll ñu defaat ko jéem a foog ni dina jàll hmm. mais bii moom duñ leen ci bàyyi lépp lu mu leen jaral dinañ jaral lu ko ëpp mënoo wax ne da ngay dem élection ba pare am ñaari different database mais aussi li la policiers yi wax est-ce que mën nga a def maanaam non loolu loolu tàmbali nañ ko depuis semaine passée. loolu maam beneen affaire la lan lay doxee ba nit ñi mën ak ak ndax ñun saisir ndax ñoom li ñu wax ni Amérique dafa am nu muy doxee organisation bi neexu leen ñii ni ñu doxalee nañ leen yóbbu justice loolu kese ci nekk mais. bu ko laajal wax ko ci digg bi parce que. xam nga xam nga ñun eh, problème bi mooy. du loolu. xam nga lan moo ci nekk. organisation bi ndax ñun depuis jeudi bi passé saisir nañ euh, Manhattan euh, district of attorney mooy procureur bu Manhattan saisir nañ leen wax nañ ne organisation bi dañ ciy request ñu def audit pour les quatre dernières années te ñoom ñi ngi ci actuellement nii donc loolu du nit ñuy wax ndax tàmbali nañ ko ba pare association bi dina dinañ leen wan ne association bi c'est pour tous les sénégalais d'Amérique do association boo xam ne affaire de ñetti nit la teg seen mafia di paasante affaire yi ñun ñëpp a ci bokk yam donc lépp loo xam ne lépp loo xam ne jaral na leen ko ñun ñu jaral lu ko ëpp jërëjëf